ah doy waar ak tiit ak jaaxle ndax ñun amuñu lu dul suñu liggéey suñu liggéey bi gis nga yéen a ngi ñëw nii ñu toog ñu ñoo fi nekk di leetante suñu biir client yi kenn nangootu la ñëw ndax kon xam ne ni coronavirus buggul nit ñu bari buggul dajaloo gis nga liggéey baa ngi nii taxaw te amuñu lu dul suñu liggéey bi ci loolu lañ yaakaar pour suturloo ci. tiit tiit rek tiit si njaboot gi tiit si ñëpp ñaan yàlla rek muy yemale ko fi rek. yàlla na ko fi yàlla yemale parce que fu mu ne ni ñi pour ñu génn jënd sax dañoo ragal njaay mi moom fu mu ne daa xaw a taxaw. parce que danger boobu moo tax aussi ñu tëj école yi juste pour que élèves yi nekk en bonne santé et tout ça ñi ñaay recevoir ay message di ñu naan ñu lavez les lavez-vous les mains et tout ça il faut prendre vos précautions daal parce que nekk na feebar boo xamante ni li mu danger danger bi mu am moo tax ñu ne que carrément may ñu.

jema raxasu ak ordre zawel ak sabu ordinaire bu ñu wax di sam xalé wañi seen dox yeeg yoy ku dikki di nga raxasu bala ngay def dara di nga rax li paré ngay dem fé raxasu ba set ñi ngi jël suñuy suñuy mesure ferme ñi ngi ko ci jël lu ko xam sénégal amu ñu doolé ku ci nek sa liggéey ba ngeen liggéey ca nga yaakar marché ba ngi ñu ni dañ koy arrêté té nit ñi tamit ci seen marché dong la ñu yaakaar nañ ñu jëm ci gëna jël seen décision ferme